ñun xoolee ñun waa Guet-Ndar saa yu a du seeg fërié saa yu Guet-Ndar hmm. Macky ñun ñun xamal la laa laaj ñun waa Guet-Ndar saa yu sa affaire couvreuse yi nga nga def nii saa yu nit ñi yi saa yu jeex saa yu wallaay xam naa caméra caméra virus mii saa yu seeraan ngeen ba mu lëmbee dëkk bi coronavirus coronavirus nga naan kebal caméra virus ke Euh, coronavirus. ah coronavirus ah mu wax ni ma waxee rek. waaw ayca caméra caméra virus mi saa yi Macky Sall a waroon am fula. Hmm. caméra virus ba mu wàccee si dëkk bi saa indi feebaram. Hmm. saa yi Sénégal Macky Sall waroon rey. Hmm? ak ak bàyyi si dëkk bi saa yi ba mu wàllu waa Sénégal. coronavirus feebar la. moom moom moom mooy mooy mooy tubaab bi. tubaab bi mooy tubaab bi fi indi feebar bi ay ay ko moom tubaab bi fii la si centre centre culturel français yi la la la la ko. feebar bi moom moom mooy coronavirus moom moo fi indi feebar bi. coronavirus mi ngi nii saa xool ñun waa Guet Ndar saa mi ngi nii bëgg rot saa ñu naan anu nekk. Eh, eh, fii boo fi génnee naan da ngay rot gendarmerie da lay dóor de. gendarmerie waaw gendarmerie da lay dóor de. gendarmerie saa am naa sama benn xarit de. Ah. kooku Kanté na nga wax Kanté. Ah. Kanté gendarme la moom. yaakaar naa mi ngi si waa couveuse yi nii. non saa Kanté bu fekkoon am af ma leer ne ma saa yi mi ngi si mbedd mi. Mm. saa yi bu ma génnee saa yi bu ma waxtaanee moom ni ko Kanté ama bëgg rot. voilà mm. af ma yóbbu. ba gendarmerie dañ lay dóor gendarmerie dañ lay dóor sa waay. saa yi ñi ma gis fii gars ñoom anu anu def ay ay mbaxana yu ñuul. ñooñu ma bi kay boo génnee damay bu fekkee dégg nga ma mën a sa xarit yee eh. hmm. saay boo mënee saay ma ma maa ngi nii saay xoolal dépense sax saay yoru max sànq maa ngi gis fii benn oto saay bu yeb ay ay ay ay affaire u ceeb hmm. ay affaire u mbiskit bonbon hmm. nee saay ah, kii nan kaa jox Euh, internat na nga kaa jox internat xanaa ma ma liggéey yow ñun jéem sax ah ngeen doyal si tubaab yi. eh internat xanaa ngeen di jox internat sax ngeen jox nit ñu ñuul. non internat du nit de internat mooy daara yi ñuy de yi denc taalibe yi ñooñu ñooy internat. axuraan yi axuraan yi waaw. Ah, man ma yaakaaroon sax internat tubaab la. Hmm.